bonjour chers internautes yu Wassare Sport nuyu na leen ak lii di Dakar Midi tey nag ñoo ngi fii si monument de boo xam ne fan zone xam ngeen ko Sénégal moo nar a football kii di cap mu nekk match bu am solo parce que ñoo ngi si huitième de de Nations Cameroun 2021 waral euh, match bi nar am mu nekk match bu rëy rëy waaye xam ngeen ko gis ngeen suñu expert bi ak suñu journaliste bi ñoo ngi taxaw moom mu ni Omar Omar tey noonu na nan ngay analyser lii di match Cap Vert Sénégal. waaw euh, di la ziar seen euh, équipe nationale bu Sénégal xam nga ni euh, favori la si Coupe d'Afrique bii ñu dugg mu fubal lii di premier tour jël première de son poule avec 5 points. nara am Cap-Vert cap nag nekk benn petit poucé cap euh, ñëpp xam nañ ni def nañ euh, euh, seen match de poule yu baax Sénégal nag war a ñëw confirmer war ñëw gagner avec la manière mu ne aborder quart de finale bi avec comme ni ma waxee avec la manière quoi parce que Sénégal mooy favori Sénégal mooy moo moo moo war a prouver moo war a wane boppam ginnaaw bu ñu amee ay cas de Covid 19. Euh, malgré loolu euh, ñëpp ñëwaan nañ Nampalys ñëwaan na euh, kii di Kalidou Koulibaly ñëwaan na ak Ismaïla Sarr ak ak ñeneen malgré que Ismaïla Sarr ñëw na démb mais mënul football match bi mais Sénégal tey moo war a wane boppam Sénégal moo war a wane boppam doo kii di Cap-Vert wane ni moom mooy favori bi pare na pour jël Coupe d'Afrique des Nations bi. dégg ngeen expert bi mu ngi seen mu ngi analyser lii di match yi waaye xam ngeen ko Sénégal moo doon favori waaye xam ngeen ni Coupe d'Afrique bu mu commencé ba léegi favori yëpp ñooy commencé ñibbi donc yàlla bu mu am Sénégal donc Sénégal yaa na fi resté parce que day na loo xam ne lu doy waar la bàyyi ko c'est normal c'est normal il faut que ñu dund yooyu noonu waaye li ñuy def rek mooy xool mbokk xool ndox fan. Euh, je pense que tout de suite, on ne doit même pas hésiter. C'est maintenant qu'il faut aller à l'hôpital et lui, lui faire passer une IRM pas Bottignon, mais lui, il n'hésite pas tout de suite à, à reprendre le ballon de volée. Ça passe au fil, mais c'est bien. Koulibaly. Alors, il voit une action de ce possible, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Alors, ouais, ça débat ça. Ouais. Ça débat ça. Ouais, regardez, allez, c'est bien la tête. 1-0, ouais. hein, au lieu de 2-0 tiers non avec, euh, avec l'euphorie euh, avec l'euphorie euh, de ce but-là. que non non. salaamaaleykum soxna salaam. moom douzième gaynde la douzième noo tudd. man Coro Diouf laa tudd. loo jàngatee match bi instant bi ah bi moom tey macha allah joueurs yi nañ bu baax a baax ci première mi-temps bi gis naa moom seen participation bi moom macha allah joué nañ bu baax. pour yow la moo des si match bi fu mu toll nii. xanaa dugal bii rek moo des instant yi mais yaa ngi ñaanal Lions yu baax. ah yaa ngi ñaanal Lions yi waaw maa ngi ñaanal ñu gagné de incha allah. salaam. noo tudd. Maguette. Maguette noo gisee match bi. ah match neex na de. waaw waaw des na tuuti ak Sénégal. des na tuuti dama bëggoon gis ñu dugal. dugal <laughs> waaw mais comment se joue si équipe nationale. Hmm? comment se ah, naa ko lool. comment se joue comment se joue rew. ah, ah de. merci beaucoup. <laughs> Comment vous trouvez le match waaw. votre pronostic. votre pronostic. C'est très bien. Pronostic. Qui va gagner Ah Sénégal. Demain Sénégal. Merci beaucoup. salaamaaleykum sëñ tur bi naka la. merci Sidia Sidia Diémé. tey noo gisee match bi fu mu toll. match bi Sénégal Sénégal dina bu soobee yàlla day métti mais day métti Sénégal dina gagné quoi. lan nga jàpp ne instant moo manqué. bon attaquant yi offensif moo manqué quoi attaquant attaquant yi amul ballon quoi attaquant yi amul ballon merci beaucoup. <laughs> noo gisee ah, match bi fu mu toll nii. de pour le moment je crois que moo dominé de la seule chose qui nous manque mooy ne bii bi ñëw daal moom la ñuy xaar te espérer ne dafay ñëw ñun allez Casa moom muy ñu ñuy gagné. que ñuy perte ñun l'essentiel mooy ne nañu supporter suñu équipe jusqu'au bout lu mu mën di demee ak nu mu mën di mel aussi dañuy supporter supporter moo ñu tax a jóg nekk si derrière suñu équipe nationale jusqu'à la fin te yaakaar naa ne victoire moom dañ koy am incha allah. kum sëñ bi ça va. tur bi naka la. Adama Diouf. ah non gisee match bi nii. Euh, non match moom euh, gis naa ne moom dañu am ndam moom parce que nii nii nii ma wax ak yow moom euh, gis naa fi loo xamante moom c'est que parce que waa Cap-Verdien euh, ndam la ñu bëgg mais terewul tamit euh, Aliou Cissé moom gis naa li fi nekk te man gëm naa yaakaar ne moom dañu am ndam incha allah bu si rek andee. lan nga jàpp ne instant yii moo ñu dugal. non fu mu nekk nii moom euh, côté ñoom Sadio Mané ñoom ñaa gis moom ci attaque bi moom moo xaw a des parce que côté laag bi ñoom laag bi moom moo xawate suuti mais vraiment maa ngi gis moom gars yi ñu ngi joué bu baax a baax moom vraiment. merci beaucoup ok de rien. Euh, Seydina Omar. Seydina noo gisee match bi mu toll. neex na xam nga ambiance bi bëri na mais tamit senegal moom fu ñu koy xaaree ba léegi gisaguñ ko quoi ñun moom bii nañ bëgg bii bi normal bii. mais depuis depuis kenn amagul but tamit lool moom mënoo gagné sans but quoi loolu moom mënut a ne. ah instant bii moom attaquant moom attaquant moom wax yàlla. ah jooy nañ ko ko waa parce que xam nga mën nga dominer match bi mën nga am ay ay tir cadré mën nga am ay corner ay coup franc yu mais bii moom moom la nit ñi soxla quoi waaw ah, ok. dégg nga tur bi naka la. Abdou Karim Diallo. Abdou Karim noo gisee match bi mu toll nii. bon pour la première mi-temps match bi sava va on a une belle possession du ballon mais nag football xam nga lan la boo mënee da ngay dugal. on a fait une très belle prestation mais daal il faut concrétiser ñun lool moom mooy l' essentiel quoi l' essentiel c' est de marquer c' ce qu'on attendait Lyon waaw surtout que tu voilà tu joues à 10 quoi donc loolu moom mooy li nga xam ne ñun moom la ñuy xaar ay buts la ñuy xaar xaaruñu football bu rafet quoi moom la ñu soxla. est-ce que jàppoo ne conséquence bu ma tuddee ñu gañe vraiment ñun instant yi luñ soxla bii l'essentiel la ñu dugal waaw loolu la ñu dugal la ñu qualifié la ñu soxla instant yi nii waaw vraiment li ñu football moom dañu ko changé nañu changé seen football seen seen seen de football ñu soxla dañoo soxla bii instant yi nii waaw pour ñu qualifier. loo jàpp instant yi moo manqué ku ñu koy dugal. loo jàpp moo manqué pour ñu ñu dugal. Ah, instant yi nii fii lu ma gis foofu noonu. vraiment seen seen seen milieu terrain bi dañ ko xaw a jéemoon nañu xool ko xool nañu ko xool waaw Aliou Cissé na xool lu ñuy def waaw ñu jéem a ñu jéem a réguler seen milieu milieu terrain bi te bël bi si milieu terrain ji ñu xool ñu dugal loolu la ñu soxla waaw parce que ñu mun a ku am kuy téye bal.

Américain, par Sénégalais, on revient qui veut féliciter Ali Cissé. Parce qu'il y a. Non, il n'y a, pas de faute. Parce qu'ils sont, ils sont tous les deux en, deux descendants. Euh, peut-être le plus, mais je pense que malheureusement, l'idée de Salimane est arrêtée. Il avait 12 ans en 2002. Alors, euh, euh, il y a, il y a Polivalo qui est appelé sur le terrain. Et le tarif habituel en Sénégal s'appelle Bondi. Ouais, ouais. C'est le Sénégal. Les défaites, le Sénégal mène par 2 buts à 0. Encore une fois, c'est joué en seconde période. Même, même si l'attaquant ne regarde pas le gardien, ils sont déjà occupés. La changement d'appréhension, d'accord, la Le Sénégal sur la différence. C'est un match très abouti des, des Lions. Bon, ils ont bénéficié de circonstances favorables, mais quand même dans l'absolu, ils ont largement dominé cette partie. Le Cameroun au, au Sénégal, voilà, 22 ans.

parce que dañoo kontaan dañoo kontaan gis ngeen waa douzième Gaïndé ñoo ngi yuuxu waaye gis ngeen tamit mais tey noo gisee victoire bi. ah victoire moom macha allah moom kontaan nañu trop parce que gars yi tey moom wane nañu xadar wane nañu jom wane nañu fulla quoi li ñuy xaar si ñoom dëgg tey loolu la ñuy jox. tey li ñuy xaar si ñoom loolu la ñuy jox quoi tey moom franchement macha allah quoi le peuple est content. est ce que yaakaaroo woon ne mën dugal bi yu waaw waaw loolu tamit am moom franchement mënoon nañu gën a dugal bii 3 4 ba 5 mais xam nga des fois circonstance max ak match bi ni muy demee ak enjeu yi tamit des fois boo mee ngay sóoraale lu bëri quoi bii que huitième de finale la jëlee ñu yaaxam nañu soox nànk-nànk ba egg finale ak jël coupe bi mu jeex. merci. waaw Assane. yow gisee match bi. Assane Julien Bass ma ko nañu match bi rythme bi ñu ko war a jëlee boo moo waral carton rouge yeeg yooyu noonu match bi abordé nañu waa ji moo taxaw moo waral carton rouge yu mais li ma gis Sénégal moo doon def beneen visage boo xoolee moo waral deux buts yi ñëw quoi mais match bi mënu woon yomb lii am quoi mais finalement victoire bi moo nekkoon li moo ñu yitaloon te am nañ ko franchement di féliciter les Lions di leen wax nga le meilleur reste à venir il faut fournir le maximum d'effort pour aller jusqu'au loin quoi franchement di leen wax ni li ñuy xaar si ñoom dëgg dëgg gisaguñ ko mais di di gagner di gagner ba waɗano masiri waɗano inde ko ɓe sikketta euh, sikkano inde ko ɓe fi wawa no contana yeɓi no contana merci beaucoup gisa masiri tay ah tay moom tay moom gars yi góorgóorlu neen moom tay moom gars yi ñafe neen moom tay moom kontaan neen jàppoon jàppoon Sénégal woo na gën a dugal ah jàppale ko waroon nañ gën a mën a dugal bii bëri. waaw waaw waaw war nañ waroon nañ mën a dugal plus de deux bi moom wax dëgg fa yàlla moom bii waroon na taw moom tay ak ñaari carton rouge moom foo ko am lu xéwal la moom da nga war a dugal ba kontaan. merci beaucoup. jeex. impression. comme am naa boobu impression s'il te plaît. oui. alors votre nom c'est comment? C'est Marine. Comment vous trouvez le match? Super, on a adoré l'ambiance, on est super content de la victoire du Sénégal et on leur fait confiance la suite euh, de la compétition. On espère qu'ils continueront à gagner. Euh, est ton joueur préféré dans l'équipe nationale Quel joueur je préfère Ouais. Euh, je dirais euh, Sadio Mané. Oui, euh, on compte beaucoup sur lui. Mais j'aime beaucoup Mendy aussi. Je pense que c'est un très bon gardien. Et voilà, on lui fait confiance. Comment vous trouvez le match aujourd'hui Le match était super. Il y avait une ambiance de folie. Une bonne ambiance. Vous avez l'ambiance Bah oui, tout le monde danse, euh, donc c'est bi tey. non match bi neex na trop sax match bi neex na gars yi na match bu neex waaw match bi am na football te am na ay bi tamit lii lañ soxla na équipe nationale bi waaw li ñu soxla nag tey ñëw na waaw indi nañ ko tey kontaan nañu ñëpp supporter Sénégal yëpp kontaan nañu merci beaucoup. Fatou. Et Satou. Fatou, comment vous trouvez le match on a, trouvé, le match super bien. C'était top et on est content que le Sénégal euh, gagné. On a, sorti du jeu, contrairement aux autres au match de poule. Donc, voilà. Oui, on est Sénégalaises. Gambiennes. c'est la même chose entre les C'est la Sénégambie. C'est ça. Comment vous trouvez l'équipe de Gambie Je les ai trouvés bien. Pour une première canne, c'est très bien. Est-ce que, est est est que, vous... vous euh, pourrez... ah, quel est votre jeu préféré Ah, mais c'est un jeu d'équipe, donc euh, moi personnellement, j'ai pas vraiment du leur préféré. Moi, je, je rassemble toute l'équipe. Mais bon, si on va citer un, il y aura Almané et euh, Ganagay. est-ce que vous croyez que le Sénégal peut aller en finale Oui. Peut-être avec, avec la campagne Oui, ils ont montré aujourd'hui. Inch'Allah, on espère de tout notre cœur. Oui, pareil, je pense qu'ils peuvent aller en finale, ils peuvent aller très loin, donc euh, voilà. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. yoon nga ñëw fii ci match bi monument de la renaissance nan nga bi. match bien passé suivre nañ ko vraiment kontaan nañ vraiment ñu ngi féliciter suñu lion yi di leen di encourager parce que football méttiwul football yombul métti na trop. vraiment ñu ngi ñaan yàlla aussi ñu dem ba final incha allah ñu ngi leen di encouragé. gis nga ne tey football la. oui vraiment ils ont bien joué aujourd'hui ñun ñëpp kontaan nañu di ñaan yàlla mu continuer nii incha allah. kon léegi ambiance moo des. waaw ambiance moo des <laughs> ñu ngi toog. merci beaucoup ñu ngi toog bëgg a féete le reste. Ah, jërëjëf ah. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax. tur beeg sant bi. Kumba Gaye. maa lay fay bu baax. Kumba ñu ngi sa sànq ba léegi dama kontaan wax dëgg fa neex yàlla mënu ma wax sax sama kontaan fu mu fu mu yegg parce que Sénégal wax dëgg fa neex yàlla sagal nañu sigil nañu. parce que dem ba si dernier dugal ñaari bal wax dëgg fa neex yàlla macha allah daal amuñu leen luñ si teg wax dëgg fa neex yàlla kontaan nañ si ñoom waaw ñu gën a ñu gën a def ay effort wax dëgg fa yàlla andi fi coupe bi loolu leen di ñaan. kon tey daal maanaam li day football nañ tey. waaw wax dëgg fa yàlla football nañ macha allah kontaan si yéen waaw kay wax awul dara awul. moo def ambiance. ambiance xaar jéeba fëlaale def lu ñu saf. yow daal yaa ngi noonu. ah. ma ne laa koy dundee. waaw amul leneen. ñuy jaajëfal. maa ngi tudd Telma Atakora. Atakora noo def. ça va maa Euh, tey moom c'était un match vraiment plein d'émotions bëri woon na émotion trop trop trop franchement mais quand même vu que gagné nañu et c'est l'essentiel kontaan nañ trop ci suñu ay joueurs aussi. gis ngeen ne tey gars yi daal ah tey moom football nañ bu baax te kontaan nañ trop ci Sadio Mané aussi. Mhm. a yegg tey moom la ñuy xaar nii sax Jaba mooñ fi tax a toog nii instant bi mais franchement ambiance bi moom neex na c'est summum daal voilà. rythme bi daal mën nañ ko continuer ci yeneen match yi ñëw. waaw franchement. kon mhm. mën nañ xaar ndam li aussi. ah bon foog ñu bàyyi xel aussi que tey dañoo nekkoon di jouer de genre dix contre huit quoi loolu tam foog ñu bàyyi ko xel donc ñu gën a redoubler d'effort. ça va. maa ngi si jàmm waaw. ii dama bëgg instant yi ah, ma chérie. je pense que Sénégal a bien assuré. Il a bien joué aujourd'hui. Oh, machallah. Euh, surtout Sadio Mané. Surtout Sadio Mané. Hum. Je suis fière du Sénégal. Fière du Sénégal. Tu habites où? À Ouakam. À Ouakam. Comment tu t'appelles? Diara. Diara. Hum. Tu fais Oui. Comment t'as vu le match Ça a été génial. Ah, Maintenant, ça reste l'ambiance avec Dieu. On va profiter de l'ambiance. Ah, merci beaucoup ah, merci. merci. ça va jàmm rek. waaw dama kontaan rek. jàmm gën a xam waaw. kontaan trop. waaw match bi macha allah billahi bu demee nii moom yàlla ñu jël coupe bi. waaw loolu la ñu. ñu ngi ci ginnaaw Ramses yaa ngi nox de yow mii. kon yow yaa may yaa may seetaan. xale bi moom xam naa daa fecc fecc ba tas ba nelaw. bu sonn kay. ah macha allah moom kontaan nañ trop. yàlla nañ continuer nii ba dem final jëf ku bindi ko Sénégal. ñoo indi ko Sénégal sax. incha allah macha allah yàlla am amiin. yaa ngi si nopp de gis naa da ngay si nopp di béeli. <laughs> fulaaram jox ko fulaar jox ko yëfam comme da ngay daw waaw kay defal supporter ba mu neex nag la waaw supporter 7 heures ba léegi laa yeew nekk ci supporter ëpp na ëpp na xamoon naa ne duñ ma teg gàcce nag wax dëgg yàlla neexoon na trop macha allah ah match bi tey moom quand même ils ont bien joué ça se voit que tey moom ñëw nañ ak fulla ak fayda waaw kontaan nañ trop trop trop trop le meilleur reste à venir coupe dina ñëw Sénégal Sénégal rythme bi ñu joué tey est-ce que mën nga xalaat ne yeneen machine mën nañ ko joué. plus même il peut faire plus euh, man gëm naa euh, final bi moom senegal Cameroun te fii lay ñëw revanche 2002 bi.